lii nga def dafa baax la ah. yére wolof bi xanaa waaw ah, gis nga tey def affaire wolof rek mais xam nga ay joolaay tàkk <laughs> soo nu mu tey dañoo gis fi stade bi dafa fees secret bi lan la secret bi mooy li ko ëmb li ko ëmb mooy lan li ma waxoon ci départ ba moom laa continué lépp lu ma ci jëlee ci bénéfice dama koy delloo ci askan bi mooy ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw muy case de santé yi muy ñi nga xam ne xëy na defuñ yàlla dara mais mënuñ satisfaire seen i besoin lii bu ma jëlee nii ma jéem ko partager ak ñoom. mais dama gis ne tey lundi la mais teewul nit ñi dañoo bàyyi seen yitte ñoo seetaan si làmb ji mooy waral ne gars yi dañoo namoon làmb muy mbër yi di amateur yi. mooy li ma wax rek xam nga làmb moom mbër yi mbër yi lii mooy seen salaire amuñu salaire lii mooy seen salaire ñu toog nag lu toll ni attaque lu topp fekk corona bi nag bi ñuy ñaan yàlla aussi corona bi yàlla jëlee ko fi parce que yàgg na fi trop. mais yàlla mi nga xam ne dara teewu ko yàlla na ko fi yàlla jëlee mbër yi nag ñàkkoon xaalis parce que seen liggéey moo taxawoon amateurs yi képp kuy séeréer da ngay bëgg làmb moo tax xëy na ñu woote rek ak xëy na base bi base bi mooy jël xaay bi jëf ko ci nit ñi yàlla day wuyu. mais ñu gis bi dafa mel ni bi mooy sa première édition ci saison bi. waaw waaw mais mooy ubbee ubbee bi la ñu ubbee quoi. waaw bi la ñu. ñaata journée nga waaj ci saison bi. non man am may li may wax. tant que le permettre na ma ko ma am moyen def ko parce que dama ne lépp lu ma ci def ci social laa koy def waaw man à la base man informaticien la man informatique laa jàng donc lii xëy na lu dugg sama sa passion la quoi ak bëgg a jàppale nit ñi te sama loxo jotul sama ginnaaw ma xam loo xam ne xëy na bu ma ko créer am ci dara mun a jàppale nit ñi. maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw Jokalante Jokalante rek comme séeréer mais yow séeréer nga walla waalo waalo. non da ngay ñëw ñu def la séeréer. ah c' est neex na de neex na trop neex na trop.